yëmbal tey jii au niveau de pour ASC Grand Thiès donc mu nekk euh, loo xam ne lu ma bett la tey jii ma am yaakaar nag ni ku ñu jara moo nekk nii waaye bettuma ci moom ndax ñëpp loo ko defal kon Falma daal tey jii su jógee euh, fa mu nekk ñëw fii tey jii fii ci Grand Thiès kan lay indil teranga ASC Grand Thiès lay indil teranga lu tax parce que ASC Grand Thiès day dem phase national représenté wu la région de Thiès mu ni defaluma ko Grand Thiès defaluma ko Thiès mais région de Thiès laa ko defal kon tey ji su ñëwee fii tey ji Eumeu Ndiaye dafa nekk loo xam ne ñu ñëpp waa Grand Thiès am nañ ci mbég mbégte yi. lan la lay indil. indil nañu teraanga gis nga teraanga yi ak yeneen teraanga indi ci nëf yoo xam ne aussi pour wan ko nit ñi pour xam ni set rek moom moo waral. yi muy def ni yëpp ak nit ñi set ndax ku setul aussi xamal ni xëy na jàngoro mën na laa dugg te ku dugg faatu moo ci tegu. gis naa fi beaucoup de produits. oui. ay produits madaax. oui. mais aussi ay baal ay panier. vraiment voilà mu ngoog dégg ci ñoom madaax. ok kon daal kontaan nga. waaw ama dama kontaan sama xol sedd di ñaanal Fall euh, te ama ñun lii la soxla est-ce que xam nga ni boobaak léegi tey jii. ñaari nit lañ fi gis ñoo xam ne ñoom ñoo fi ñoo ñoo fi ñoom ñoo fi joxe gum ci au niveau de l'ASC Grand Thiès kenn ki muy le maire si la keneen ki muy le monsieur le ministre Thierno Alassane Sall keneen ki mi ngi nii ñëw tey jii ne ñooñu ñëpp te dama ko yéex a yéex sax loolu la ma wax dama ko yéex a yéex sax moo tax ma bett la donc bu ma bettee tey ji indil ma teraanga yoo xam ne xaw ma fu mu toll kon damay def lu dul sant bi jàmm. xanaa pour fay ko titre bi nga yor xanaa da koy indiwaat jox ko ko. waaw ku ma xam-xam ni man euh, bëgguma di dem di perte. donc première année gis nga li fi xewoon yëpp quoi donc kon ren jii su Fall ñëwee indi jox ma teraanga gu mel nii hmm. day nekk loo xam ni sama mbégte la te incha allahu taala dama koy indi coupe bi ci boppam dem Ziguinchor indi ko ñëw jox ko moom Fall ma Fall salaama Fall dama bëgg nga wax ma lu tax nga jël initiative bu mel nii. Ah, dama laaj nga ma lu jërëjëf maa ngi nuyu mot bokk Sud FM yëpp di nuyu waa Grand Thiès di nuyu laay see di ñëw seet si sama xarit Babacar lépp moom la nag ñëw nañ fi parce que ñëw nañ fi war a ñëwee parce que dañu ànd ak HD Industrie qui est une société sénégalaise d'abord basée ici au Sénégal ñoom un dépôt ici à Thiès lu waa di def ñu yëg ko dañ ci dugal suñu loxo ni mu ko waxee rek dañ koy yéex a yéeg mu bett ñu nekk en promotion ma ñëw ànd ak sama équipe ñëw ne dañuy sargal si waa ASC ASC Grand Thiès ah loolu it bu amee ama du du dara lépp ci dëkk bi ndax euh, lu dagg rek fekki moromam euh, Babacar mi ku ko xam xam ma euh, ci lu mu nekk naa ci nekk waaye HD industrie ci gàttal ni ma ñëwee dafa indi produit yu mucc ayib te kii di nawetaan di set ak set ci biir loolu nag ñun ñu créé fi benn produit bees bu ñu naan jettol jettol maanaam plus de propreté ak plus d'hygiène la indi te nawetaan set ak sell moo koy def euh, ñu profité ci occasion boobu ñoo indi ko pour xamal ko waa Grand Thiès indi d'autres produits yu mucc ayib yoo xam ne en tout cas daal ñu xam ne HD Industrie ànd ak Madar ànd ak Noura ànd ak Jetol nous serons toujours derrière l'ASC Grand Thiès pour l'accompagner pour les phases nationales incha allah. ñëpp xam nañu ne si domaine bu mu nekk am jot yombul mënoon na rek toog fu mu toog yóbbante te boo ko defoon aussi dañ si jot mais lii dafay wone ne tey dafa bàyyi lépp li mu nekkoon. rien que pour ñëw fii si biir Grand Thiès fekkee cérémonie bi daje ak waa Grand Thiès waxtaan ak waa Grand Thiès te xam naa ni ñaanal Grand Thiès donc si loolu rek du ñu man lu dul du ko féliciter di ko remercier si déplacement bi parce que tey li mu def ni yombul te tey képp kuy Cees waa laa wax soo xamul faal dégg nga ko parce que tey si trois à quatre années yi ñu génn génn fii Cees waxuma laa si nawetaan bi de mais fépp foo laal day naan Fall Madaar man mi xaw ma nu mu tudde Fall Madaar laa laa xam eh, bi Matar ba ñëwee fii maa ngi fàttaliku boobu nekkagul ministre ñu ne ko kii doomu Fatick la ci laa xam ne Fatick la Fatick la jóge ñoo Cees te tey def na fi li nga xamante ne am na ñi nga xamante ne judd nañ Cees màggee Cees defuñu ko fi déplacement bi rek wane na ko parce que tey bëri na ñi nga xamante ne dañoo yore ay post de responsabilité yore ay entreprise di ko jiite duggantewuñu wuñu nii ci population bi keroog maa ngi koy tooñ futsal la ñuy daje ma ne ko grand gëj laa gis nga xamante ne lépp li nga xamante ne day dajale nit dana def tout pour au moins nit ñi gis ko ci nit ñi ràññee ko ci donc à titre individuel man aussi en dehors de l'ASC dama kaa war a gërëm di ko sant ci action yooyu donc monsieur Fall di la dalal d'abord Grand Thiès mais aussi. balaa maa jox kàddu gi sama président war naa laa mën a présenter Grand Thiès aussi parce que tey ñëpp xam nañu ne Grand Thiès équipe la boo xamante ne si fusion lañ jóge e je crois que tey dañuy namoo tur boobu parce que fépp foo dem Thiès suñ ne booloo leen dañ naan def leen comme Grand Thiès donc ñun dañoo dañoo yaakaar ne tey fusion boobu ñu def ba indi tur Grand Thiès bi daf ñoo jik parce que 2008 la fusion bi am te deux 2008 ba léegi yaakaar naa li may wax sama mbokku nawetaan yi néew na de si équipe yoo xamante ne am nañu parcours Grand Thiès d'ailleurs si mille 2013 euh, amul équipe boo xamante ne en une année gagné nga zonal départemental régional ak national Grand Thiès rek a ko def te yàlla dimbali ñu aussi si histoire nawetaan Sénégal. si quatre ans yi ñu génn depuis 2013 mille 2015 ba deux 2016 c' est la seule équipe bi nga xamante ne quatre phases nationales la ngi nii chaque phase nationale ñu présent donc si domaine bi nga xamante ne tey ñu ngi siy excellé dañuy ñaan suñu borom rek yàlla gën ñoo dul sutura ba déwén comme président nu mu ko waxee équipe cadette bi ak équipe senior bi mën a demaat te yaakaar naa ne si yoon boobu la ñu nekk. ba pare aussi di la wax Grand Thiès aussi one est d'une jeune féminine hein, très dynamique parce que tey secret Grand Thiès lii la ñoo ngi nii foo tourné Sénégal dañu naan Grand Thiès mais Grand Thiès ñii ñoo ko composé Fallou boobu fi nekkoon naa ne kooku moo ñu magal mais à part loolu ay xale yu ndaw ñoo fi ne si njiitalu président bi toog. ñu am nag benn cellule boo xamante ne tey mën naa wax tey Grand Thiès fu mu egg ñoo ko eggal mooy jigéen yi sànq liñ ngi leen tooñ ne ana ñeneen ñi parce que lépp lu ñuy def lépp lu ñuy nas ñoom ñoo nekk ci kanam ñoom ñoo nekk ci ginnaaw te yàlla def aussi ñu am benn capacité de mobilisation bi nga xamante ne tey ñun mu ñoo ñu jox doole loolu dama ko ci bëri rek pour ne à traverse li ngay liggéey mën nga leen bàyyi xel parce que li nga def nii ñun on on doit vous appeler à une collaboration à un partenariat yow yaay am yow yaa am ay produits yow yaa am entreprise bi ngay jiite mais lépp li nga xamante ne tey sentir nga ne Grand Thiès mën na see teg loxo boo ñu ko waxee dinañ ko dinañ ko organiser ni nga ko bëggee te ñoom it dinañ si jàpp ni mu waree. mënoon naa ñàkk. ndax euh, suma président commission financière bu ma yeboon ne la wax na lépp waaye xëy na damay mottali rek te li may mottali yëpp jógewul ci man mu ngi jóge ci Grand Thiès d'ailleurs may nuyu ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Grand Thiès ñi fi toog ak ñi fi toogul ñëpp ñu ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam di nuyuwaat encore euh, ci turu ASC Grand Thiès muy sama xarit di sama wóolëre muy Fall Madar donc ma am mbégte tey ji euh, lu tax ma am mbégte mooy euh, dafa nekk sama sama sama xarit même bu ñuy gisante sax léeg-léeg ñu romonte sax oto la yor ma yor moto waaye léegi day bëgg a taxaw sax ci circulation man it ma bëgg a taxaw ci circulation oto yi di ñu klaxonné ñu xam ni léeg-léeg mu ni ma suñu waxtaan xaju fi de ma ne ko ma ni suñu waxtaan xaju fi de kon ma xam ni ànd rek ak fasante kóllëre rek moo moo mooy lu wér parce que aussi am na loo xam ni exemple la. te royuwaay la boo xam ni ku nekk fii rek war na ko ci mën a jëlee ndax ku xool boobaak léegi ay doomu aadama ñëw di indil ASC Grand Thiès ay ay ay teraanga kon def lu baax rek moo wóor moo tax su ma nee ay royuwaay la ku nekk war nga ci mën a roy mooy ñun ñu toog fii ku ci nekk rek war ngaa mën a roy ci teraanga yi ñuy doomu aadama yi di indil ku nekkit war ngaa mën a xam sa bopp it war ngaa mën a jël teraanga di ko yóbbu feneen aussi te loolu lenn rek moo koy may mooy pas-pas ak yar ak teggin ak xol boo xam ni loo yi nga yéene sa bopp nga yéene ko ki ci des loolu mooy tax nga am li nga xam ni moom nga bëgg te yaakaar naa ni faal mii faal la boo xam ni dañ naan ko faal ma daal mais dama daan ko faalu ñëpp la faalu ñëpp la ndax bu ngeen ko xoolee sànq mi ngi fii toog du foobeere du fobeere madaaram la du fobeere man ko naan yow tu fais bien le marketing ah. mu di ma ree quoi oui parce que dafa am côté yoo xam ne ci marketing boo koy def bon dootoo xool turu patron bi dootoo xool turu directeur bi mais toujours yaa ngi xool turu population bi mooy nan la ñuy def ba utiliser li nga xam ni moom mooy set setal euh, dëkk bi mooy li nga xam ni moom mooy euh, set setal nit ki ci boppam parce que nit ki su setul rek doo mën a sax toog ci lieu doo mën a toog ci milieu donc kon luy setal nit ku koy def rek da nga ko war a jàpp te yàlla tax donc Fall ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci turu ASC Grand Thiès tey jii su ASC Grand Thiès di dem phase nationale nga yëg ko tardivement wax ma ne ma dinaa la setsi si ma ni la yow même boo ma seet man dinaa jël sama participation ñëwal la ndax yaay man man maa yow kon su fekkee ne da ngaa bàyyi yëpp indi sa. entourage indi sa xale yu baax yi baax yi nga xam ne ñoom ñoo lay jaayal ñoom ñooy nekk ci terrain bi wax dëgg yàlla foo dox dajeeg ñoom car macha allah ñuy dang-dangi di sonn di ñàkk mu wóor la ni rek bañ ko leen yàpp ak bañ def lu bon moom moo leen ci yóbbee donte dërëm biñ ci am sax doyloo nañ ko loolu moo tax ñu di ko def kon ñoom it ñu leen di sant ñu leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla mu dara tëwul yàlla na leen yàlla gën a jiboolee ak yow ndax yow ànd ak yow du pertement déedéet ànd ak yow du pertement bu ànd ak yow doon pertement kon xale yi kenn par kenn bàyyi nañu di dem seen yoon waaye toujours car macha allah xale yi dañuy gën di dooleeku ni ñuy gën a di dooleeku aussi yàlla na société Madaar di gën di dooleeku si kaw ba ñu dem ne Fall daf lay jox société Madaar yàlla mën na ko yàlla na la ko yàlla defal teraanga bii nga jox ASC Grand pour mu yóbbu ko te li gën a yéeme mooy dama toog sànq rek woo ma ne ma te sa ñëw laa ci instant bi ngay ñëw la ma woo ne ma finalement CDEPS bu Ziguinchor mujj nañ la ko libeere jox nañ la ko soo ñëwee di nga dal yàgg sa équipe yàgg waa Grand Thiès ak ni ngeen mën a toll te faal ba ngay ñëw lañ may woo ma xam ni kon noonu ñu ñëwee ak noonu nga ñëwee ñu woo ma noonu noonu lañ yàlla nañ yàlla joxee noonu coupe ñu indiwaat ko ci ñu ngi lay sant. ñu ngi lay gërëm di la wax ne la xale yi jigéen ñi ñu ngi nii bu yàgg lañ ma doon wax naan ma nan la ñuy def ba dem ci Falma Dara man leen jaru ko xam naa ne bu yëgee phase nationale bi dina ñëw d'ailleurs naroon nañ fi def benn tànn béer le maire sa xarit Talla Sylla ñëw na fi ma ne ko tànn béer mu ni ma jigéen ñi ne nañ ko tuddee Talla béer <laughs> donc yow nga ñëw mu wóor la ñoom dañuy def tànn béer activité nawetaan activité la boo xam ni activité jigéen ñi la ñii ku leen jàppalewul du baax parce que ñii ñoom rek ñoo jar a jàppale su dul ñii ñun duñu dem su dul ñii jarul woon sax ngeen fii ñëw tey jii su dul woon ñoom jaru ñuy daje jaru ñuy wuti xaalis kon nag comme ñoom la il faut ñu jàppale leen ànd ak ñoom xool seen bëgg-bëgg ñu def ko man de wax dëgg yàlla bu doon sama sago duma am sax xarit bu góor xarit bu jigéen lay am parce que c'est normal donc en profite encore ma di la wax ne la ñoom maa ngi leen di gërëm di leen sant mooy la commission féminine commençant par la président ma reprendre encore le président sortant aussi xolal dama bëgg nga xool bu baax li ma lay wax président sortant moo nekk nii présidente antan moo nekk nii xoolal jigéen ak jigéen ni mu mel président sortant ñëw di jàppale président Antan ñu mel nii ànd kook seen mag seen xarit muy daba dabasaar nii ñoom ñëpp ñu àndandoo ak ngoone Assou Ndiaye ñoom ñëpp jeewoo Kajaba ak stafam ak ñeneen ak ñeneen ne ñoom ñooy bokk ndey bokk baay man ne leen comme ñeneen ñi bokk ndey bokk baay man Babacar Diallo dinaa leen jàppale ci lu ma mën dinaa ko def te lii ngeen def ni day am continuation boo xam ne day jëmaat déwén encore sama alal nag maa ko moom samay nit xam naa leen ku ma am dinaa leen boole ñoom sama xaalis dinaa leen ko jox ma profitoo pour ren pour defal leen ay activité di leen defal loo xam ne ñoom seen biir ñoom ñooy nekkandoo seen biir di lekkandoo di naanandoo di defalandoo seen mbaxalu bopp pour rek pour ñu nekkandoo benn kon yow soo nekkee sama xarit ñëw seet si ma tey jii dinaa la wax samay mbébét ak li ma bëgg a def kon ma di leen santaat di leen gërëmaat encore ma xam ne bu daggul rek incha allah taala li ma leen defal bu dagg kon dinaa la gërëm seen kanam yow it lépp loo mën ci si ñoom aussi ci wàllu liggéey ci wàllu jaay bi ak yeneen ak yeneen ak mi ngi noonu ñu ngi noonu kon nag Fall ñu ngi lay remercier ci turu ASC Grand Thiès di la sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu waa Grand Thiès di am contentement ci accueil chaleureux bi ñu accueillir. man ak sama staff eh, staff bi nag dafa xaw spécial tey parce que dama am ay gan yu jóge dakaar ñu nekk en promotion pour une semaine parce qu'on a été invité trois jours de Joal on part le vendredi pour Joal mais dañ ne dañuy def au moins les quatre autres jours dañ ko def région de Thiès mu doon ñu baax. le responsable di sama grand Dramé ànd ak ñëw fekk si ñu fii Thiès l'équipe de Thiès cette équipe nag bu ñu yegsee fii tey je rends grâce au bon Dieu jigéen ñi ma àndal ngeen di gis donte ñëpp ñëwuñ mais ñi ngeen gis sama ginnaaw ba ma duggee Thiès ba léegi ñu ngi ak man le dépôt de Thiès à ce jour mënuma wax ñaata nit moo fa nekk te bi ñuy commencé fii trois trois personnes lañu ñu tey fii ma toog muy Grand Thiès dama fee war a toog. parce que bi may jógee Dakar di liggéey si fii Grand Thiès laa tàmbalee euh, Grand Thiès laa tàmbalee su ma ko waxee dina ñu bëri nañ ci jaaxle li may wax ça remonte en 2006 fin 2006 à ce jour ça presque dix ans je suis à Thiès suñu benn mag bu ñu naan lay ñaa moo ma dalal fii ci dëkk bi ñu ànd jóge Dakar ñëw liggéey si Thiès. on n'était que trois man la woon moom ak benn représentant commercial bu ñu naan Sidi Mohamed ñu di ko wax Simon c'était un Marocain Ablaye Niang moom mu ngi dëkk fii ci ginnaaw rakkam bu jigéen ñu naan ko rakkam bu góor ñu naan ko Pape war ngeen ko xam ku daan yëngu ci ay Grand Thiès te mu génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm d'accord xam nga ko Pape Fall lay Niang jarbaatam a ngi fi taxaw maam Yacine kon bu ma nee Grand Thiès fi la ñu doore pendant six mois këram lay añe fa lay reere kooku tey dem na ba doon responsable commercial ci man parce que teranga bu ma ji ma ànd ak moom il était juste un chauffeur ma ànd ak moom ñu accompagner ko ba jàngal ko métier commercial il est devenu un commercial temps plein moom laa jox tout les secteur de Mbour aujourd'hui et il est en de travailler normalement mu doon ko jub ku xam liggéey bi kon loolu ci gàttal entre parenthèse ma doon def pour wax leen ne Grand Thiès bu ñu wootee ma wuyu si damaa ñëw fi ma war a ñëw sport nag man mi pratiquant la kuy dem nag ci xare dañ lay ñaanal nga dem ak jàmm ñëw ak jàmm waaye suñu yéene mooy na ndam li ñëw kon nag ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla na Grand jël ndam li jigéen nag dama ciy ñëwaat rek parce que li ñuy liggéey ñun muy wàllu set ak propreté société bu ñuy wax HD industrie envoyé ñu fii ci Thiès kii di HD industrie nag di Madar di Noura di Jetol di wax aussi pâte dentifrice boobu ñu créé ñu naan ko Mera loolu produit dérivé yooyu ngeen di dégg yépp société HD yi moo ko fi def société boobu nag jéggaanewul dara lépp fii lañ ko defaree c'est une société sénégalaise tout a été si ici à Soudan dans ce pays kon consommer sénégalais am na solo béy nag ci sa wewu tànk ñun Grand Thiès la ñu xam fi lañu ñu déparé kon bu ñu wootee dañu ñoo jàppale leen Babacar nag pour wax ci moom dina jafe trop parce mënul wax ci sa bopp dégg naa lépp bi nag parce man. naar laa waaye dégg naa wolof de liggéey amul fenn fi ñu waaye nag suñuy xel ak suñuy xalaat may nañu ñuy sottante xalaat ba créer liggéey parce que HD industrie ku jóg pour liggéey mu accompagner la man partenaire rek lay wër te dama def management def marketing partenariat bi ma gëm mooy gañaa gagnant na société bi gagné jigéen ñi nekk fi gagné ci ñu ànd ñun ñëpp ñu dem ci biir lool maa ngi tàllal samay loxo sa jigéen ñi bu dee jigéen liggéey rek lañu bëgg nañ takk seen digg préparé wu te xam ne liggéey am na fi waaye liggéey nag bu kenn xet ndax ku xool ñi ma àndal muy jigéen ñi ma àndal ñu ngi ciy daan seen doole di ci faj seen soxla ànd ak seen dignité nag bu leen gis kenn romb leen ak 4 x ngeen naan ay waay war naa am 4x4 bi bu leen ñee kenn 100 francs ak 100000 la yem 100 francs boo ko doyloo xam ne 100 francs nga am moom la la yàlla dénk nga seet ci say soxla su lu tolloog 100 francs nga def mais boo bëggee am 100 francs bëgg a dundee 1000 francs yaa ngi ni sa bopp problème kenn du la dimbale kenn mënu laa dimbale parce que bu ñu la joxoon liggéey bu munti am it boo yeggee ci 100000 francs yaa ngi am soxla 1 million kon nit ki day doylu d'abord doylu weesuwul gëm sa bopp boo gëmee sa bopp rek développement foofu lay tàmbalee Grand Thiès dafa gëm boppam de yaa ngi may wax fusion nit ñi ñoo ko yor parce que gëm seen bopp. man da doon bokkoon naa ci équipe nawetaan boo xam ne dañ woon suñ bopp ñun rek ñoo doon naanandoo suñu groupe bi mais équipe mënuñu gagné ndax fi ñuy toog dina dañuy wax nan la ñuy waxtaanee nan la ñuy gagné équipe tey bu Babacar de man bu ma jotee bal bi xam na fi Babacar ne dama koy paas du ma ko xool sax loolu lañ doon wax équipe walidaan bu Fatick naqare woon gagné ñun ñii ñoo ko yoroon instant parce que c'était une bande d'amitié dañ doon àndandoo di defandoo lépp. kon nag gëm sa bopp rek moo wóoru ñu ngi bañ a guddal di jaajëfal ñëpp nag gis nañ ni ngeen ñu dalale jërë ngeen jëf kontaan nañ ci bu baax ci accueil bi waaye partenariat bi nag gagnant gagnant bi laa gën a tudd gën ci wax il su que vous vous organisez ngeen doon 10 fii mbala 11 fii mbala 12 fii muy laïcité ci boppam parce que y a yoo xam ne jéem naa ko fi def daaw mais jàllul pourquoi pas ne pas créer laïcité Grand Thiès créer une 12 fii ñu seet naka la ñuy liggéey ak ñoom sous forme de parasol ou bien sous forme de partenariat gagnant-gagnant on peut vous livrer des gammes ngeen dugg ci koñ yi ngeen jaay ko recette bi ciy génn yëpp faal na demande que sa facture leneen yëpp dañ koy reversé waat donc c'est un partenariat gagnant-gagnant et loolu c'est possible on ne demande pas d'apport personnel c'est juste pendant une semaine on part su boobaa dañ leen di boole koo xam day ñëw defal leen benn séminaire wan leen liggéey bi naka lay demee essayé naa ko ak moom moom xam na li may wax bu baax kon nag waxuma pour wax nii kese waxu liggéey laay wax muy jigéen ñi nga wax léegi junj leen ndax euh, jigéen bu baax bu dara baaxee jigéen a ci jàpp parce que bu dee ñun góor ñi amuñ jot bi dinañ nekk ci début bi nii jàpp ci nii mais finalité bi jigéen ñee ko war a yor kon nag ñoom bu ñu organiser seen bopp rek je sais que suñ ma seet see ñu xool naka la ñuy def ay formule de travail war nañ ci mun a génn te kenn du léser sa morom profil moo ciy génn société bi am ci profil yéen ngeen am ci profil ñu ànd jëm kanam. su boobaa sa yeneen ASC ñoo leen di roy ñëw bugg a def na yéen parce que liggéey amul fenn mais ay xalaat rek la ñuy def calculer génn ci su munee nekk ñu def ko su munul nekk it ñu def lu mën a nekk ñuy waxante dëgg loolu nag du yàq sama relation ak sama waa ji dara loolu c'est dans le cadre professionnel ñu ngi leen di biral ne lépp loo xam ne Grand Thiès mu ngi koy organiser bu ñu koy yëgee dinañ teew suñ ko munee suñ ko mënul dinañ yebal ay nit. ngeen xam ne daal ñun ci seen biir lañ nekk yéen ñu mën a jàppale parce que ñun rek mënuñ dem produit yi ñu fi ndeeg yi ñuy jaay ak yëpp su fekkee la société jàpp ci kon du ñu dem wala ngay jéggaani nag di jëlee ay produit yoo xam ne ça vient de l'Europe États-Unis vaut mieux ñu consommer ñun li ñu am donc j'incite la population de Grand Thiès d'abord en particulier ensuite tout la ville de Thiès, tout la région de Thiès à consome tous les produits de HD Industrie lu ci Madar Noura Jetol pâte dentifrice Mera Colgate boo ko fi defaruñ ko fi bàyyi leen Colgate di jënd pâte dentifrice Mera ga Grand Thiès slogan boobu laa leen di bàyyee Jetol bi may indi tey produit bu bees bi bugg naa kenn ku ci nekk boutique bu mu dem ne ko ana sa Jetol bu ko amul nga ni ko demal jëndi ko ci dépôt bi Jetol dafa baax ci quartier bi <laughs> kon nag ci gàttal mon frère ah, nañ wax alhamdulilah rabil alamin yàlla na leen yàlla lafal cat yàlla na yàlla def li gën ci quartier bi bu fekkee ne coupe bi Grand Thiès a moom yàlla na ñëw jàmm te mu jik ñu ñun ñëpp ah maa ngi bëgg a tënk waaye maa ngi nuyu tamit sama grand sama mag ah koo xamante ne. mamba damay jóg jox koy loxo te foofu laay tënkee asalaamaaleykum wa rahmatulah.